ak Kaolack. waa bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu yéen mbokk Sénégal candidat ànd nawle ànd liggéey sëriñ buub yokk ba yëg ko ànd ak daara ji tool bi ak pénc mi maa leen di nuyu fii ci Kaolack sama buntu kër ànd ak sama mborom ndongo daara yi nga xam ne nii mën nañ ne euh, fanweeri at ci gannaaw ne ñoom laa meloon kon tey maa ngi jaayante ak waa Sénégal yëpp ci garab gii nekk sama buntu kër ne leen damaa yéene ah yëkkati réew mi fexe nag ba nga xam ne nit ñi ñii taxaw nga xam ne nii dañuy ay dongal daara fexe ba nga xam ne nii coono yiñ nekk dana deñ muy intérêt Sénégal ndax tey sénégalais bu ne war ngaa mën a jàng sa alxuraan jàng sa diine jàng sa làkk bi nga bi nga moom jàng làkku tubaab bi jàng làkku anglais bi ba nga xam ne nii fu ne lee tudd doom nga man ko def buñ ne lee kaay jiite nga jiite il faut que ñu jël pilier yi nga xam ne nii moo ëpp doole ci réew mi ñu defaraat ko li ci jiitu mooy defar assemblée nationale ba mu nekk assemblée du peuple du nekkati assemblée parti fexe tamit ba créer euh, euh, haute autorité de la justice buñ paree tamit mu defar économie bi niñ koy defaree mooy wutal ko institution bu dëgër muy chambre consulaire yi ëmbul organisation yi baykat yi sàmmkat yi nappkat yi ak artisan yi ak industrie yu mag yi ak yu ndaw yi ak képp kuy def transformation ak ña nekk diaspora te bëgg liggéey ci réew mi defaraat parti politique yi nag man nekk parti politique boo xam ne nii day contribuer ci luy développer ci réew mi te bañ a nekk ay partisans. ba joolaa suuxee président am la ay watt am jaaxle ci ay sénégalais yu ko gérer man mii la woo ma créer société def ci samay milliards ba bato bi mën a daw. waaye ku ne sawar nga fa nga nekk ci cœur de ville sa mbokk fekk la fa. nga am toilette boo ko dugal nga am fu mu gaare kon l'exemple marché ci Sénégal wala ci àdduna cœur de ville daf ci am solo. fii ci Sénégal bu fekkee tubaab yi bañ fi ñëwee di ñu coloniser ci mbay mi lañ jaar pour defar suñ koom-koom ñun ñu dem ba am si indépendance te mënuñoo toppatoo baykat ba baykat nekk buur ba baykat manal boppam ba baykat. soo eh, bayee ba noppi jariñoo ko kon daanaka ñuy ñu jaratul ñu toog Sénégal